njiital Pastef di Ousmane Sonko yoon daal dina koy teg loxo loolu nag gannaaw ab jàmmarloo boo xamante ni rek amoon na ci diggam ak benn sandarma bu jigéen moom Ousmane sonk nag ba mu julli ji ba ñëw mu jàpp ne ak kii di sandarma ba daf ko doon filmer ak photo ci noonu nag la daal di wax ndaw si mu daal di supprimer yile image mu daal di jël. naka noonu ba mu bañee ca la Ousmane Sonko daal di nangu rek téléphone am ci noonu nag teguñu ca sax ab diir ci la waa GIGN daal di ñëw rek dugg ca këram daal di koy jël yóbbu ca yoon gannaaw nag moom niki dém ñu daal di koy placé en garde à vue ci rek la ñu waxoon ne lañ koy toppee muy appel à l'insurrection ak vol de téléphone niki tey procureur daal di nay amal ab conférence de presse ci loolu nag la daal di leeral rek la nga xamante ne moom la ñuy toppee kii di Ousmane Sonko Ordre ci waxtaanam nag dal nay leeral ne toppewuñ ko càccub téléphone rek la ñu teg rek ca ndoddam bëri na lool bokk na ci appel à l'insurrection association de malfaiteurs atteinte à la sûreté de l'État complot contre l'État ak lii di vol de téléphone mu nekk ay chef d'accusation yoo xamante ni daal nay tegu rek ca ndodd bu Ousmane Sonko moom procureur nag ah, mu ngay leeral sax nan contimence ba nga xamante ne ah, moom lañ doon wax dara changé wu ci contimence ba nag mu nga nekkoon atte ba nga xamante ne amaloon nañ ko rek ci diggam ak aji Sarr te moom teewul woon moom procureur mu ngay leeral sax nan dara changé wul ci bile contumace waaye nag mu mel ni démb sax. moom procureur Abdou Karim Diop ca diwaanu Kaolack daal di nañuy attaqué rek këram gannaaw ñu daal di teg loxo kii di Ousmane Sonko. mbokk yi borom naaru góor yegg si na kii tax gannaaw sunu borom bi seen aajo di saafarawu di faju ci diir yu gàtt. kooku mooy kan mooy Seydina Ousmane Ndiaye borom naaru góor yàlla may na ko mu mën a faj yenn xeetu feebar yu demee ni daaxiliya di ay jàngoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde jabet ndoxum siti ak néew kattan gi waral tuuru naaru góor naari góor garab la buy faj di yokkaale puissance maanaam kattan moo xam fu seeni at mën di toll nag ak bépp feebaru suukar bu nekk ci seen yaram mën ngeen a jokkoo kabineem ci numéro yi 78 582 64 54 wala 76 019 19 19